abonné leen ci chaîne youtube bi di yatal xeltu yin te activer cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngeen di ko mën a jot ca tàng-tàng ba tàng-tàng ba assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh mbokk yi bàyyi xel youtube bi di yaatal xeltu yin ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di am mbégte di fas yéene àndati ak yéen ci benn secret ñaan bu nga xam ne yaakaar nañ ne dina war a soxal ñenn ñi ana lan moo ko tax a jóg li ko tax a jóg mooy nit ki yàlla nattoo jëmm joo xam ne da ko noonoo ba noppi di ko lalal pexey safaan di ko jéema wutal ay gàllankoor wala ay jafe-jafe wala ay problème moom moomu nga xam ne nag moom lañuy fexeel ana yan matukaay lay jël su bëggee yàlla sàmm ko aar ko protéger ko sécuriser ko ba pexe yooyu ñu koy lalal du antu mbokk yi lii daal lañu fas yéene séddoog yéen tey bu ci yàlla àndee waaye dañ koy jéema liir ci arab ba noppi soog koy jéema tekki moo tax mu ne lin nasri ala ayi shaxsin yakiidu lak aw yansha'u laka mashaakil bacda solaati al isha wa qabla solaati al fajr تكون على طهارة وتصلي ركعتين لله بنية قضاء الحاجة وبعد السلام تجلس مكانك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى وعشرين مرة وتقرأ الآية الشريفة سيهزم الجمع ويولون الدبر ثلاثمائة وثلاث عشر مرة وتختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى وعشرين مرة وقبل القراءة تكون نيتك في الشخص المراد mbokk yi nit ki su fekkee dafa am ku koy lalal pexey safaan wala ñu koy lalal pexey safaan bëgg koo wutal ay gàllankoor ay jafe-jafe ay problème mu bëgg a jël ay matukaay yoo xam ne bu ci jaaree ci baatin yàlla dina ko sàmm aar ko défendre ko protéger ko ba pexe yooyu ñu koy lalal du sotti mbokk yi na jëfandikoo lii may bëgg a wax su koy jëfandikoo nag day njëkk a bàyyi xel wan waxtu lañ koy jëfandikoo dafa am waxtu moment buñ koy jëfandikoo waxtu bi wala moment bi mooy diggante gee ak fajar bu ma nee diggante gee ak fajar mooy ginnaaw bi nit ki sëlmalee ci julli gee te fajar jotagut ginnaaw bi nit ki sëlmalee ci julli gee temps boobu nga xam ne mooy dox diggante ginnaaw bi mu sëlmalee julli gee ba keroog fajar di jot diggante boobu mooy diggante gee ak fajar waaw boobu mooy waxtu wi luñ ciy def waa ji day fexe ba laab ba noppi bu yoree toj mu ndaw mu jàpp ji bu yoree toj mu mag mu sangu ji farata yéreem laab yaramam laab bërëb bi mu nekk laab mu def lan mu daal julli ñaari ràkka ñaari ràkka yi nag ràkka bu ci nekk da ciy jàng faatiha ak saar wu ko neex wala saar wu mu wala saar wu jàppandi ci moom ñaari ràkka waaye ñaar ràkka yi nag da ci yéene yàlla fajal koy aajoom maa ngi julli ñaar ràkka yi li ma ci yéene mooy dama ci bëgg a jaare ngir yàlla fajal ma sama aajo ji aajo ji mooy jëmm ji may fexeel yàlla bu ay pexeem sotti lool nga ci yéene bu ñaar ràkka yi matee ba nga sëlmal nag nga wax lii may bëgg a tudd muy lan dangay julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam vingt une fois muy ñaar fukki yoon ak benn fekk nag yaa ngi toog fi nga doon jullee doo jóg de doo déplacé wu bu ñaar raaka yi matee boo sëlmalee bul jóg fi nga doon jullee rek da ngay rester sur place toog waaw kay bu ko defee nga wax lii may bëgg a wax muy lan allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim moom ngay wax ñaar fukki yoon ak benn muy vingt une fois wala beneen suyoo muy beneen formule wala beneen anam boo mën ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais en tout cas daal na doon vingt une fois muy ñaar fukki yoon ak benn mbokk yi soo jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar fukki yoon ak benn nga teg ci aaya bi muy sa yuhzamul jam'u wa yuwalluuna dubur ma waxaat ko sa yuhzamul jam'u wa yuwalluuna dubur ma wax ko benn baat par benn baat sayuhzamul jamu wa yuwalluuna dubur ñaata yoon ñetti téeméeri yoon ak fukk ak ñett muy 313 313 limu gaayi badar ya suma juumut boo jàngee aay boobu muy sayuhzamul jamu wa yuwalluuna dubur 313 ñetti téeméer ak fukk ak ñett nga daal di julliwaat ci yonent bi maanaam nga tëjawaat ko julli ci yonent bi muy allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim wala beneen sura boo man wala bu la jubu ci julli ci yonent bi ñaata yoon ñaar fukki yoon ak benn muy vingt et fois kon ñaari julli ci yonent bi la sallallahu alayhi wasallam bi ngay commencé ak bi ngay tëjee ñaari yëpp vingt et une fois lay doon kon da ngay njëkk a julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam vingt une fois jàng say zamul jamaa way wala way walluuna dubur 313 muy ñetti téeméer ak fukk ak ñett tëjewaat julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam 21 fois muy ñaar fukk yoon ak benn waaye nag laata ngay jàng laata ngay jàng lii may wax maanaam boo julee ñaar raaka yi ba sëlma laata ngay commencé jàng gi faw itam li ngay jàng danga ci yéene li la tax a jóg loo ci yéene dangay tudd turu ki lay lalal pexe yu bon yi bu dee kenn nit la bu dee ñaari nit la nga tudd seen ñaari yi bu dee mbooloo la itam bu doon fukki nit la bu doon téeméeri la bu doon junni nit bu doon milliards nit itam nga tudd seeni tur ñoom ñépp ne yow yàlla maa ngi maa ngi lay ñaan nga musal ma ci pexey diw mii bu dee kenn nit la wala maa ngi ñaan nga musal ma ci pexey diw ak diw bu dee ñaari nit la wala maa ngi ñaan nga musal ma ci pexey diw ak diw ak diw bu dee mbooloo mu bari la mbokk yi lii daal mbokk yi ku koy def ku lay fexeel da day sonn waaye du sotti incha allah mbokk yi damay taxawandi fii di leen ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bi di yaatal xeltu yin di bàyyi xel waxtaan yi di commenté di amee ndax fi la njëriñ yi di gën yaatoo jaa ngeen salaam